bi mu ne man damay am kersa sax bu ma dajeeg nii mu ne ma bu njëkk ba dañ ma daan wax yéen bu ñu leen seen marché bi ba léegi ma ne ah ñu ngi xaar rek waa xanaa mën leen dem ci déw ak déw ak digu digu ma ne ko ñun porte bu mu fëggul amul ci àddina mm-hmm. waa léegi tey il semble que après li fi xew yëpp xam ngeen ko sax gégeer yi fi am xëccoo beeg maa koy defar doo ko defar ak appel d'offre yeeg ka ko gagné woon ak coût baak sept milliards ñu jékki nanguwaat ko ci moom taqal ko retard de travaux et cetera la ci. benn société bu ñuy wax Ecotra. ah waaw Ecotra waaw mooy ay Saalum Saalum yi. xam nga xaw nañ fi xuloo ak maire bi sax. waaw bu mu xaw a indi ay problème ethnicisme sax. Hmm. ba ñu xuloo ci xuloo yu métti. finalement ñoom dañ leen a woo ci ruq ne leen bàyyi leen mu sedd. waaw waaw léegi bi ñu bàyyi mu sedd ñun par exemple suñu plan consensuel bi ñu defoon ñun ñu ngi ko présenté woon en septembre deux mille dix huit de commerce. Hmm. ñëpp fekkee ko. ba ñu validé ko ñu toog le mille novembre 2018 septembre lañ ko présenté 2018 ñu bëgg ko wan opinion publique bi préfet may ñu autorisation ba dernière minute ba ñu luyee suñuy chaise ak suñuy tente mu ne non du ngeen ko fi def Sénégal mooy dëkk boo xam te looy def da ngay ñaan autorisation da ngay ñaan autorisation mu ne du ngeen ko fi def parce que rond point bi dafa sensible ak dafa nangam nangam après mu ne ñu plan bi bu leen ko wane bu leen ko génne foofu ah oui waaw waaw boobu am na lu ñu préparé daal léegi aussi ñun bu ñu toogee novembre 2018 ba août 2019 ñu jekki-jekki beneen deuxième plan génn ñu ne fu mu jegee commune de Dakar ñun invité wuñ Dakar Plateau wala Plateau ville non Dakar Plateau. foofu la jóge moom la ñuy wax le plan fantôme waaw. plan boobu ñun xamuñu sax nu mu mel ñu ko gisee ay jardin ak ay fleur ay nangam nangam <laughs> ay espace marché soxlawul lool marché gis nga xataay boobu ñu ciy bañ. loolu mooy kiiwu marché. Mm. marché boo ko limité xam nga wereyaan la day law. loo bàyyi rek parce que je di souvent que euh, am na loo xam ne canton on légalise l'illégalité ça ne mm. peut créer que le désordre mm. loolu moo indi cantinisation yi moo indi marché bu xat moo indi yépp te loolu c'est la faute à la commune mm-hmm. noonu rek la demee parce que mm-hmm. ñun <laughs> au premier jour de l'indépendance marché boo demoon danga nga fay fekk poste de police fekk fa ñaar wala ñetti policier mhm. mhm. mhm. et l'ordre régnait amul woon problème mais boo masaan wàcc suuf rek jaay ci tali bi ñu ramasse la ramasse c'était continuel mbedd bi ku fu mas a taxaw di jaay dañ lay ramasse après nga dem lijjanti jëliwaat boobu phénomène ambulant bariwul woon sax mais dañoo bàyyi muy dégradé wu à la reconquête di wut recette recette recette ba garab yi dañ leen buddi dakaar garab bu fu mas a am buddi nañ ko le cantines ne la nuit da ngay yeew rek gis benn cantine. Mm-hmm. ah boo xoolee sax sa buntu kër ñu teg fa cantine. Mm-hmm. doo xam ne mu demee mais li ñu leen di jox toujours mooy autorisation euh, à titre précaire et révocable. Mm-hmm. mais xamuñu ko ñoom nañu am fu ñu toog rek. c'est l'essentiel. après nga ñëw di leen fayeku taxe. nit ki tànk yaa ngi koy fayeeku taxe jë jàpp ne moo ko ah moom waaw mu ngi mooy mooy légalisation de l'illégalité mhm. moo créé tout le désordre yi nekk Ndakaaru mhm. léegi nag deuxième plan fantôme boobu bi mu ñëwee moo indi problème bi léegi ville de Dakar jóg ne man maa moom tuteelu Sandaga mhm. architecte yi nee na kii c'est un patrimoine boo xam ne kenn waru ko démolir et cetera et cetera beaucoup d'encre ont coulé sous les ponts aujourd'hui en de compte politiquement le maire du plateau lañ ko mujj jox. Mm. bon bi ñu ko ko joxee ba léegi taxul mu wooñu nee na ma gis naa seen demande d'audience yëpp mi ngi foofu mais du ma du ma ko du du ma leen recevoir. ah bon ah ñaar yoon lañ fi recevoir de ñaar yoon yooyu xam ne. leen recevoir xam nga audience nit ki bu fekkee doo ko déglu wala doo dégg li muy wax ça n'a pas de sens. ñun jooy nañ fu ne tel plateau bu ne toog na fa toog nañ fa di ko ñaan pour ñu toog parce que nit ki boo koy liggéeyal dara te boole woo ko ci problème bi. mel na ni tu travailles contre lui te dañ ko waxoon président en 2018. dañ ne ko hmm. woon bëgg nañu li ñu dig war ñu koo defaral buñ koy defar ci conception bi en amont et en aval. ngeen hmm. boole ñu ci. dëgg yàlla nag. parce que ñun ñoo xam marché naka la war a tëddee. pour ñu joxe ci suñu xalaat nous ne sommes pas ingénieurs duñu maçon duñu architecte duñu dara. Hmm. mais suñu xalaat lañ yor. tey aujourd'hui le site de recasement ay casu pigeon la gën a nuróol. un mètre un mètre la toll. ko xoolee fii mètre ak deux mètres. ñu ñëw defaral la ko ne la ñëwal évoluer fii ah amul accompagnement amul dara ñun ñi suñu xalal yàqu woon ba tey def nañu enquête seet nañu ku nekk loo yàqule nangam nangam nangam nangam ba sànq ba tey mille francs dugalaguñ ko joxaguñ ñu sax résultat enquête yi far. pour wax ne yéen nangam ak i nangam. état dina leen dédommagé lii ak lii. lu ko maquette fantôme man bi ma mujjee bi waaw maquette fantôme baa ngi nii de. après monsieur Fleur jóge fële moom ñëw nee na. nee na monsieur Fleur. yi day ñëw yéen ñëpp da ngeen di jóge foofu mooy dix 99 quantine yooyu nekkoon ci alentour bi. Hmm. da ngeen fiy jógee parce que JOJ yi bu ñëwee dañu taaral Ndakaaru dem wuti ay bagu fleuram yu dul jeex ñëw Iba Mar Diop dàq am sa yëpp teg foofu. ñëw Sandaga rond point foo dem di nga fa gis bagu fleur mais boo demee tey fleur yëpp dee nañ. xanaa rond point bi sax mu am. chance ñu sax ñu ngi koy dindi waat. Ah, même gars yi leen jaayoon fleur yi dañoo roose ba sonn finalement xaw ma lu tax roose tuñ léegi problème boobu échoué na. <laughs> xam nga Sandaga c'est toute une histoire boo xam ne wax dëgg yàlla yàlla rek. moo ñuy dimbali en fait ci nekk li ci nekk. exactement dañ ko politiser dañ ko politiser. merci beaucoup.